Yeah, yeah, ma ni de la. yaa ngi toogaay jaaxle nga toog de. toogaay yi mën kay faa. def say sa nii def sa lakkos bu. très bien nii. xaar rek pour ko ba ci suuf nii mbas ko. waaw gis nga kenn yow sama xarit bi. waaye xam naa ni les poches sont vides. ndeysaan bi muy booyee. man xamee wu ma la de. non mais quand même. faal yi lii gars yi ay cent lañ koy jaayee. tamit du ma ak ci réew mi maa nëbboon sama bopp rek. naa fi mu toll nii mu la joxee ñeenti junni di nga ci mën a régler ay yëf parce que fi mu toll nii sañse nga waaye xam naa ni poche yi dara nekku ci. non nit booy café dañuy eh, def kafe parce que euh, ah, ah, foo ma naan kafe quand même. wala nag ma bëgg a defaral café. non non non. ah d'accord

lan mooy loolu bébé ba jàmm la yow. du jàmm. maa ñëw déplacé wu ñëw këriñ këriñ ngay wax waaw kaay jege ma tuuti. du ma la jege bi ngay ñëw léegi lii ka nga àndal te yéen a kër yéen a fanaan wala yéen a yéen. non bi si tu pas jalouse. ku bëgg fiir nii. ku bëgg da ngay fiir. Ah. kon ça veut dire que commencé naa marqué quoi yow lii kay yaa ngi ko présenté da nga fàtte loolu. ba ci yéen kat xale yu góor yi ngeen. non non non bàyyi loolu mais def nga sañ rek. waxuma la def na sañ lan bi ngay ñëw nga ànd ak lii ko expliqué. non laa ko fekk ci escalier yi maa ngi dugg si ñëw fekk mu toog stressé jaaxle noonu ma dem ba koy romb ab ci laa ko gis. ci laa koy laaj mu ne ma non dafa ñëw xaw ma mooy gaañaan bi koy jël fii ci gàll bi nu mu tuddati. mbay mbay. Hmm. ah dafa nag ak moom de parce koy laaj nangu ma expliqué mais elle avait l'air très stressée. <laughs> boobu coïncidence yéeme na de. non mais noonu la demee. Hmm. man maa la woo noonu après pour nga ubbil ma. dafa sone xam nga rek nee mbay ne ko du dugg ci gaale bi mais loolu nu mu demee noonu lan la war a def mbay ne ko doo dugg ci gaale bi. loolu la mu wax de nee na dafa ñëw sone mbay ubbi frappé porte bi ne ko génnal kër gi maa ngi koy cuisiner noonu sax naat yow lan nga lan nga def lan moo gaaw. mos fee am mos fee am de kon de lim def war naa garaaw. waaw oh. sinon naka affaire ah? sa kóol bi mi ngi doon sax. Ah, ah mm. nga ko dégg muy vibrer quoi. Ah, d'accord sama yaay de moo ma doon woo xam naa damay ñëw rappeler ko nii léegi. chère mère dafa sonn leen. sa yaay. démb ba tey mi te pourtant démb ci guddi wax nañ presque quarante minutes. yow ak sa yaay. waaw. démb. chère tey ah, faral di wax moom ay quarante minutes. moom sama yaay des fois danga naan kii man maay copain non dañuy wax ba xaaji guddi du ma bàyyi ma ma ma noppalu fi mu toll nii. xaaral ma rappelé ko après wax suba seen gaale bi moo xaw a yéeme quoi. <laughs> moo tax moo bëgg ñëw la ciix. kër gi ay mbalit la ay mbuut kese yoo xam foo koy rafatee mhm. non mais métti na xaw ma ndax ndax ndax après yow gisaat nga ko pour mu expliquer la wala. bu dee mhm. ah man de xam nga rek jandal gel boobu noonu gaayaan boobu tam war na mën a def loolu. mbay rek. lii elle est belle rafet na mën na sañse tooy na. mbay eh, mbay moo xamul lu mu bëgg mbay tey moo ngi fii suba moo ngi fële leer na ma ni moo ko toog man mbay xam naa xam naa jukkoom jukkoom moo juste. non mais man pourtant man période mariage bu ngóone bi. bi ma ko fekkee pour man gentleman la ah. waxtaan nañ nii. bref yi na bon kii séen naa fi rek période mariage bi ah. moom mooy yaaw sama bi dëkk fii. waaw je t'ai juste aperçu ah man kii rek laay gis nag dinaay xool nii mais kii moom. mais bàyyi leen la daal bàyyi kenn xel man rek la ci loolu. daal ba naa la loolu bëri maa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm damaa xaw euh, damaa xaw a jaaxle. lan la. damaa ñëw léegi kii gis nga dama ko fasaloon kanam sax. mais xam nga fasal kanam yow la bàyyi sa jikko jooju. kii cool bro la kii boo ko xoolee xam ne cool bro la jarul nga koy fasal kanam tamit. yaa ngi yaa wàcc noonu na ma kii cool bro. mais cool bro la. yow xam nga cool moom da ngay weddi loolu yow. cool bro nga ma koy wax. kii xam nga cool bro la. <laughs> non ay si léegi lan la ngay mere. dafa am euh, lu loo xam ne daf ma xaw a jaaxal fan. sànq bi ma koy tëjee bunt bi. moom lii ñoo ànd man j'ai rien compris. mu ñëw lii nee na lii ka la fekk ci escalier yi mu stressé wu parce que mbay nee na ko di ji. léegi stressé wu kii sa fan la. mooy damay képp jëkkëram nga. Amérique ah, nit ki nit ku baax la di. ku baax utee naa ak sama sama Samba Xoyaan mi nga xam ne déggul jat damay wax ndar mu wax Ndakaaru. sa Samba <laughs> ah, fekkoo ko fi. fekk naa boobu daal nga gis. déggul jat hmm. wax naa ko li ma koy wax foog ne maa ci ne. mu cimpi. ma mari kii yàlla na ma yàlla àtteeg. déedéet waay kooku non après di ko xam. voilà hmm. après. dina war a def lii lay def ci lay dugg bi. lay jaaxee bi. ah oh, ba sonn. non Ibou la guerre commence man ak Ibou nee na yaay moom moo koy woo appelle Lika ok. papa moom ana sama papa nu mu def. ndeysaan ah d' accord ok allez ci kanam. d' accord nuyul ma sa yaay nuyul ma sa yaay. waa mbay mi ngi lay nuyu waa baax na xeer ok. ngeen yow. jëm jëli yow yaa ma waxoon moo tax ma yow di la xaar boobu ba tey. waaw en bu ñu daan ànd maa la daan yaa ma daan xaar mais léegi man maa lay xaar nga toog ma toog fi une heure de temps. pour ñu dem jëli per nga ñëw ñëw romb ma dem defari sa café may ma vingt mille affaire yooyu noonu waaw xanaa li ma la may kontaanoo ci nag ok kontaan daan wax sa gémmiñ daan gën a yaatu nii te danga ko naj mu demee noonu <laughs> te dama bëgg ci yow mbay gémmiñ gi dee ko yaatal tuuti ñu def ay ñu dem ah, oh, mais nag comme loolu amul taxaw amul kii nañu dem wax moom ci fulla gàddu ko mu ñëw régler situation bi. ayca c'est Ndim xaw ku Ibou Ndim yéemul ci réew mi mais man Ibou Ndim yéem na ma Ibou Ndim mi ngi wax ak lii ka ni ma yaayam lay waxal. Ibou mi ngi encaissé lii pour jox ma di ma may ay vingt mille francs te man Ibou Ndim sama xarit la Ibou Ndim xarit laa ko jàppee problème bu ma am jox ko Ndim mais Ibou Ndim man jeu bi muy man comprendre ma Ibou Ndim quoi donc c'est-à-dire mooy man ak Ibou Ndim ci kër gi du yomb. su jaree ma tër ko rendi ko fii dama koy tër rendi ko parce que Ibou Ndim ni muy dundeek man boobu ba tey yéen a teg seen bët yéen ñëpp non du munut yomb ak lii que nii non munut yomb Ibou Ndim dina daj dëgg. mais si jàmbur. dama ne pour nga expliquer ma lan moo tax mbay mu ne du tijjil mu lii ka. xamoon naa ne gàllankoor moom am na lu dugg ci délire yow. ok oh, yow nekkal à l'écart. da ngay bañ wax ci kanam. non non xam ni kat yaa ngi la boo ne nii. xam man. la kër gi boo bëggee dégg woon na boobu mais daa mel ni léegi dafa am yoo may tax. ma ne da ngaa tax ci dara. fi ngay tëdd di képp di misère yi man xaw ma woon ne waaj lay tëdd ma woon man Marie man ma yow mëggeel nan la. mais may ma may ma tuuti ci moom may ma tuuti ci moom kon xale bi mi may waxtaanee fii quoi parfois muy ñëw muy doser nag di sabu. mais moom noonu la mel dafa dafa dafa kii dafa dafa am kii. bàyyi loolu la dafa am xadar. Hmm. Hmm, dafa am xadar. waaw mais wàccee affaire yi nag. mais xam nga kër gi moom boo fi ñëw. Hmm. da dafar di bàyyi faale ba ñëw di ànd ak ay mbuus ay yenn xeetu cadeau yi mais ah, xam nga wel wel ji bu baree tamit du ànd ak du ànd ak conscience. ay lu may def ci mbuus yi mais sëriñ sëriñ sëriñ fekk sañse nag. wax naa la saa yoo muus lan la lay fekk moom. waaw muus yi lan moo ciy ne. ñu la ma faal bariwul de. waaw Samba Xayaan. <laughs> ay muus ay sëriñ consort xam nga kër gi ñëpp fi ne. waaw ay ay ay xeetu yi ngay romb ci. xeetu baax baax meññeef yaa ngi lu bari. kër gi dafa am code boobu noonu cest à booy ñëw da war a gàddu muus. ah bien sûr pour waa kër gi. kër gi waaw xam nga man damay teg ci kon. Ah. man dama ñëw rek ma apprécier la ma ne mënoo génn ci yi may wax. Ah, dama lay tegaat rek yow maa yoo xam nga kër gi dafa am ay man boo boo nekkee ak man partenaire sa jàmm neen yow fi mu ne nii bu la neexee nga lal basang sax nga lal mat laa sax ci digg bi. non man yooyu moom grave man tey su ma ñëwoon gaal bi yëpp def front contre man. je gère solo du si am parce que. kii moom tànk kii sama xarit la dama dama tànk mi ngi may cons rek. gis nga maa ngi problème ma ma damaa ñëw ma toog non non oui ma nag dangaa ñëw ma sympa ak yow sérieusement kii sama xarit la. lan nga may gàddu ay mbuus tam di ñëw. mais doo gàddu mbuus lan nga bëgg. kii bëggee wu ay mbuus bu toll confinement lañ ne kenn génnu xanaa bay ñëw di nga indi mbuus teg ko nit ñi nit ñi. dafa toppee ay mbuus ma. Ah, kii kii ba mu fi dalee ñëw ba tey. yaa toppee ay mbuus man ma topp ma ko de mais xam nga lan mooy problème bi. yaa ma tu m'aimes pas. je t'aime bien mais. am na mais am na loo xamante nii. dégg nga mais am na loo tamit nit du xaar ñu wax la ko yow yaa koy xamal sa bopp du dëgg. confinement bi nit ñi toog seen kër xanaa boo rombee sax nga jënd ko baa nga ko indaale ko ah boo rombee boo rombee tudd di sax bitig jënd fa ñaari saako ceeb ak kii xam ne kër gi daa man maa la waroon sama jikko mais dama matérialiste xam nga man nag de ah, da nga bëgg ay kii quoi yow ay ay ay fond ay affaire yooyu noonu bañu ma ko loolu problème yow bu dee moom habillé la rek def ci yow bul jaaxle mais bu keneen dicté genre kii yooyu la. booy maa ngi bëgg def partenaire mais buy génn or kii quoi. Ah, daal sa daal yi moo ma ko jëndal nag de ni nga ko gisee nii. waaw ah, gis nga. fa baax na mu jënd daal de. ma ko jënd ana plaque bi. plaque baa ngi ah, euh, ma expliqué ma tuuti léegi ak mbay mi seen ma de après naa la expliqué. dimbali ma rek waaw mais tegal ko rek. tamit tamit tamit kii. partenaire wuy ma parce que moom fa moo fekk kii ci buntu ba ñoom ñaar ñu yëgal yëgal. man maa ko dugal ci biir kër gi la boobu jantal kenn la innocente la. innocente waru mën a toog fii. yow yaa ko def innocente yow est-ce que xam nga kooku bu baax xam ko la la am jëkkër am far. luy loolu waaw ah, si. waaw nga xam ko ay. non non non bàyyi. ay la am kala sa sot. yu leer ne am nga ci ay preuve yu leer nañ. ay fàttali bu ne woon voyage yow yaa ma xamal ne lii ko dafa demoon la am jëkkër te amul benn te amul benn far nag. kii kii lu mu sekk gain bi doxaan ba euh, kii Marine euh, lii ka. sekk dëkk ci kër gi. ay gain ngeen rek. waaw waaw da ngay taakle yi ngay taakle booy boobu noonu. yow tu as des preuves palpables par rapport ak li ngay wax. man gis naa la ci mariage bi ak boobu ngeen kolante nii nekk ay kii. waaw dama ko xamal ba pare pegg ko xëcc ko sama wet. yaay yaay bandi. dangaa neex. yow kon li ngay ànd ak moom yépp dama ko xamal. fekk boobu yow xam nga ni. xam naa ne am na jëkkër ma koy peeg bu ko teg bu ko teg ci code teg ko ci programme gisoo booy bi ni ma doon lekkee xaalisam yow. yow am nga ay preuve yu leer ci loolu. waaye preuve yaa ngi man may de. ñu xool mosuma la woon ma yaa boobu na <laughs> boobu na bul ah. na ci yoon xam naa lu wax li ngay def nii dafa garaaw. mais est preuve yi ñu xool. est-ce que suñu divorcé dafa nekk ci yoonu divorcé mais divorcé gul moom avoué na ko Mbaye. léegi Mbaye. waaw gisoo gisoo ba tax ne kër gi ma ni ko def lool la di. Ah. looloo tax waa ji ne ko doo dugg ci kër gi fekkee yow xamoo lu leen moo wax la comme yow déggoo daal yi. donc fekkee naa seen boobu noonu mais man c'est-à-dire. na woon li ma li ma la mën du duggee ci kër gi boobu ba tey am jëkkër am far. yéen ngeen bàyyi loolu noonu muy daw yow Sénégal loolu ñaata nit ñoo ko fi def te kenn xamu leen. est-ce xam nga yow yoon mën na la topp ci complicité. complicité la parce que yow nee nga xamoon nga affaire yi yooyu noonu. non xam naa jëkkëram. mais man du ma ñëw naan may du dafa am jëkkër. mais man parce sa vie. man bu demee ba dem man jàpp naa ne lii ko du ko bon. non loolu xëy na rek xel la rek. xëy jamono moo ko waaw jamono ko topp. après day dem fekk tubaab bu dee nga seeg moom du la mën a dara nga ñëw xool ku ci mel ne mbay xëy boo koy utiliser day nangu rek. de seen bopp rek la ñu yor dañoo. non mais rek nii dañoo jekk naturellement. moo tax kii man waa ji. amul parfois day def déglu ma fii yow bébé nga mbëggeel mbëggeel parfois du xool détail yooyu noonu amul parfois mu def loo xam ne leer na lii nii am dëppoowul la raison ah non kii maa ngi moom high level la bàyyi li ngay def kii docteur loo la kii faj kii faj bëgg yow jàmm yow moom la ñu da ngaa am fukki dërëm bu nga bay dëgg laa la wax. kii na génn ci yi mu ne. soo paree. muy dund ay xaayale ba man ni bu nekk jame yi. fii yooyu amu fi. après ñu dem ñu dem Mayga. xaay level bi moom wax dëgg yàlla war ma nañ dem Mayga ba rek. yaa ngi dégg ba ñëw Mayga ba tàng naa leen eh, ma. yow am na loolu eh, ci ma kii nga la la dal ci mbay li dal ngoone mbay dal mbay dal keneen a keneen dina la dal ci kër gi. ay lu jëm si kii situation ban la taxawee. ak fan la dëkk waaye tamit li ma dal ci kii nar na laa dal ci. kii ab diwul la day waay wayaan xam naa ne day wayaan wayaan kat la day tàllal ñu may ko mu indil ma kii xamoo fu mu jóg mu naan ay xaay la bëri. kii li muy dund nii taaw taaw kii la woon kanaan way nu mu na de. yàq nga sama xel de. waaw na xaay la bëri gi mu la wax nii. li mu fa jógee nekk muutu lay woon ci yow suuf. yow yow la moo tax yow saa yu ma nekkee ci jàmm yow. jël samay paase yéeg ci kaw rek. ma ne naa kër gii mosuma leen wax loo xamante ne bi. waaw mais ma. sànq sànq sànq wax sànq la sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq sànq kii topp ko mais affaire liiga bi man dinaa ko topp parce que man liiga wanuma lool ma naan xaay xam naa ne la kii kii wax ba ba wax damay dóor di foog nga topp booy bi rek mu nga sax xaay lebal ji billaahi ñoo yóbbu ci loo xam ne xaay lebal góor ju koy Ah, fu ma fekkee ak sama xel bi kii tamit. kii soxla na yaa woon ci bonheur bu jaar yoon. kii dafa ñëw pour yàqal dégg nga li mu lay expliqué ci faram bi nee na dégg nga li mu lay expliqué. yow da ngay wax rek. kooku day woyaan man damay dem indi ñëw di la jox. loolu xoolal xeetu daal yi. ma ne la daal nga ma fi jox ak lii. leer na ma ne bi nii amul booy bu ko fiy sol. bu ma gaañ. dama la. yow soixante mille francs la daal yi di jaar. ma ne ma du loolu daal am. Colobane dégg nga moom kon demul. yow sax nga ma Colobane yow. moom kon demagul ba. sax nga ma Colobane. non xoolal étiquette bi. da nga ma Colobane wala li from US la. bàyyi li ngay def tamit li marque la téye ko téyel matière bi làmbal original daal la. yow man Cisco sa niveau man sa niveau ci wax. Ah. yow li ngay babaarde man àttanu ah, ma. amee loolu sa niveau dafa dafa dafa yéeg. n'est-ce pas yow wax yeeg parax parax yeeg délire yeeg moo tax nga kiife ma say su ma ñëwoon rek yolom rek léger dañu waxante dëgg yow déjà sa jàpp sa style. ku la xool xam ne yow gentleman nga bëgg roots. lan ngay doyee góor bu yolom yow tuur wax docteur Law. yow da góor yi dañuy am problème seen couple yi woo ma. yow chaque minute je loolu noonu. bàyyi li ngay def booy bu mu yàq <laughs> bàyyi si caaxaan docteur Law nga cons ni yow. macha allah da nga koo teral ñu def xew bu rëy te nit kuy dund ci kaw suuf am nga ay noon am na ñoo xam ne ñu ngi xippi seen ay bët di xool boobu ba léegi nag gisul mu jànkonteeg coono bu ne. di xëy di lëlu ci néeg bi kenn du ko gis. mu leer ma ni kii mu ngi souffrir moo tax ba ñu waxtaanee ma ni mbay na jub ndax jub jot na te lii jot jot na gannaaw dee. moo tax ñu xëy luqali luqati la ba ni la ciit indi la nag nga fas yéene say say. léegi perte euh, la ñun boo gisee ñu doxalee ni ñu nii. mooy dañuy wane suñu kilifteef ci biir kër gi. parce que yow kër gi bi mu fiy ñëw umbuloo ne ay jigéen rek ñoo nekk ci kaw. Hmm. man ak Ibou ñun nga fi fekk ñuy ay góor. tuuti nañ lool mais ñoo fiy kilifa parce que ñu ñoo fiy góor. kilifa du ndaw. kilifa du ndaw léegi nag boobu temps ba tey. Ngoné Mbaye suñu jigéen la. Hmm. ñu gis li nga xam ne mi ngi koy dund. Hmm. maanaam jooy na guddi. Hmm. jooy na bëccëg fippu na fi pour ñëw sa kër. maa ko téye takk na ndigg li pour ñëw attaqué ku jëm te loolu noonu yëpp yow sa faute la parce que tamit mënoo ñëw mënoo ko jox xaalis bu bari mu xew xew bu rëy nit ñëpp ñëw yow déjà xew bi gisuñu la. loolu mën nañ ko comprendre ñu bari bu ñuy xew ak yooyu. dañuy yónnee mais bi xew bi rombee li gënoon rafet yow ci jour xew bi ci guddi gi lañ la commencé xaar. mais peut-être xale yi jigéen ñi sëpp ko naan ko wujju ba ne wujju ba laa te la plupart genre affaire yu demee ni mooy mooy waral wujj yi duñ déggoo. parce que déjà moom comme ni muy jàppee ni sa wujju comme nee na woo nga ko ni ko sa wujju da ko da ko da ko dalaa jox attaaya nga nelaw ak yooyu. Hmm. donc yooyu noonu maanaam ci kër kilifa tey bañ genre détail yu demee noonu surtout bu nekkee da ngay doo ko takk. Hmm. takk sa jabar yi commencé commencé tongatu mosuñoo gisee. Hmm. yow aussi tamit nga daw ses responsabilité ankay mm-hmm. mm-hmm. moo tax ñu jël si la. Mm-hmm. te daw responsabilité de. lan la ko daw xam nga xew mi. ngeen baal ma ne maa maa sa coono ci ni ngeen wër xam wër bi metti na. xam nga kuy dem ba wër kilifa li ñu koy wëree. amal na la yitte. waaye xew mi man ni ma ko foogee woon la demewul noonu. ndax man dama ko dama yaakaar dañ koy def xew si sobriété mooy xew yu sedd yooyu. léegi nag siiw bi mu siiw moo indi toj jàng yi. yaa ngi dégg loolu moo indi wax ji. kon su takk suuf la. déedéet déedéet xam nga am na takk yoo xam ne da nga koy takk ba noppi mu doog a fees. mais yow dafa mel ni yow da ngaa takk ba pare comme lii bu di wax daw say responsabilité. déedéet parce que ankay ah, parce que yow bi da ngaa bëggoon kon ñu ñëw takk ko takk mboo xam ni takk bu yem lay. bu yem waa kay léegi nag takk bi kii jéggi dayoo nga daw. daw ma. maanaam man damaa yeew rek dégg takk bi fii takk nga fee takk ba léegi nag bi ma demee bay def bay ñëw. bi ma demee bay ñëw xam nga rek mag faaw mu seet boppam bi ma demee bay ñëw ma seet sama bopp gis ni man maa raw férigo <laughs> wallaay loolu la rek <laughs> takkub xala taseel ñu takk ma xala. ah chauffeur ah. <laughs> la rek de wallaay. waat naa ko ci yàlla. gis nga boo yéegee ci kaw. lu ne man nga ko faa fekk. waaw Ngóone man biir na ma boo yéegee mu ne la xuy mbëkk bu mu la bett boo yóogee boo boo yéegee mu dóor la kuur bu mu la bett ndax naqar la nekk ci kaw mbay mii mën na koo seede bu la waxee dëgg rek loolu <laughs> léegi li wax li ma ciy doole xam nga mooy la mooy yow dèjà ngoone dalaa guuxal mooy boobu ba léegi yaa ngi ko dikk lune de miel te leer na la boobu mënoo mais te léegi bi ma ko wax mënoon naa boobu nga waroon a profité ñëw defaral. mais yaa mën a xam. a tudd. waaye ci loolu xam nga yëf yi mag nee su ko waxtaanee ci naa dem jéem rek <laughs> jéem rek. léegi. li ma bëggoon ngeen may ma ko. ci kóllëre gi ni yàlla boole. ngeen may ma génn fii woote téléphone te ñëw. pour de xam nga dama nekkoon ci traitement ma woo waa ji laaj ko fan naa toll. te xam nga nag fi mënoo feebar ba pare yéeg ñu lay dóori kuur mu gën a wow waaw man rek kay fanaan ci bi nekk ak moom. maanaam yow. Hmm. mënuñu laa bàyyi yow nga génn kër gi même bu dee. même bu dee da ngay woote. non non non bu dee yow même bu dee da ngay yéeg. waaw yéeg doo fa def dara. tëdd rek sax di ko def yow. di yéeg tëdd yow. te xamal naa la ñaar mbay. waaw Ngoné mag la waaye gone la. mag la waxtaan nañoo góole Mbaye man ak Ibou loolu kay boo amee ku mel noonu kay dafay laaj nga fàggandiku wóolu sa bopp ba pare doo ko def léegi may leen xam naa leen wax bu yéegee naa am dama des ab ab desend ab leen ma oote rek ñu ko libéré la ko kaay kaay léegi xam problème bi lan la boo yéegee ci kaw li ma lay dénk leen rek la mm-hmm. entre frère mm-hmm. parce que man a yow même Ibou dee xamante wul ak yow man ak yow xamante ne dëgg la parce que man tiitoon naa ni yow ca na nga meloon da ngaa ci loolu. déedéet mu commencé <laughs> léegi ñun wóolu léegi yow bu nekkee da am problème. Mhm. ñu takk xalaat yooyu. Mhm. gën a rafet mooy nga ci kaw. Mhm. nga sa soxna ba ñëw ngeen tëju. ni ko damaa ragaloon a ñëw. parce que bëgg na moo tax mu. ko. am sa écouteur bi. amal ma casque bi. pour lan la ah comme day dooree cours. ma défendre sa défendre déedéet. mais boo bëree bëri te réer gérer nañ dem nañ dem. waaye mbay boobu tax deesu ko gérer ci biir kër waaye tamit. yow xoolal booy ñëw boobu ma doon maa yow booy dugg rek du génn. waaw léegi kon may def ma saw. déedéet si kaw xam nga duus. saa yi nañ dem. non bu laal touche pas ça. waaye doo si nga xam ne. non non daal xam mu daal nii bàyyi ko bu laal ñu woote aux urgences. Eh, jàppal ma urgence la ñuy wooye bu laal kii. Eh, ñu woote huit cent urgence la ñuy woo non non. bu laal huit cent zéro zéro. wooteel jël sa kóol nga eh, bàyyi mu puso bi yow nekk ci ma xam ne benn nga na nekk si kër gi ngeen ko gën ko ñu woote bébé arrête bul dugal sa bopp ci yee

nañ jéeg. naa dem rek baax ci bu jiitu ñu wër ñu nekk ci digg bi. waaw jiitu jiitu ma toog ci ginnaaw. ci bu tegeel maa maa ngi. déedéet Ana Ngoné Mbaye. Ngongo. <laughs> ci dëkk bi kii <laughs> maa ngi nii damaa la raw ndeysaan. aywa. ay waay <laughs> nam naa la loolu laa la expliqué. ndeysaan mu ne ma yaakaar mi ngi yaakaar bu tas ni ci ku mënut. ci ci ci glace gu